mbokk yi man la indil njariñ lu am solo ca gàtt seen mbokk la njaay kurus njariñ loo xam ne ñëpp ko mën a jëfandikoo jaru ngay dem ci kenn di ko wax sa aajo ji liggéey lii ma lay jox nga toog yow bàyyi sa bopp ak suñ borom xool lan lay def ak yow yoonu watan fariju bihil korob lépp lu la mën a jaaxal ci àdduna da nga am njàqare sa bopp bee ubbu amoo solution sa aajo ji yaakaaru ci kudul suñu borom li defal lii ma lay wax watan fariju bihil korabu mooy man yàlla rek képp dong may wuññi seen njàqare am na ñu koy liggéey ci yoonu war a ay tannaasa commerçant nga mbokk mi tailleur nga menuisier nga jaaykat nga da ngay soxla mbooloo ci sa barab liggéeyal yoon wi ma lay wax isa jaa nasrullahi wal fathu war a ay tannaasa war a ay tannaasa rek boo ko jëlee nga adet ko da lay jox 999 mooy junni bu manqué benn soo jëlee yoon wi watan fariju bi xil korabu da lay jox 999 mbokk yi 999 tey ci laa lay jox secret bu wér a wér a wér a wér ca wóor ci sallallahu ala muhammadin ak li ilaafi xuraysh da ngay jàpp jublu penk toog sa sijaada bi wala nga toog ci sa barabu liggéeyukaay bi yaa xam foo ma a ne jël sa kurus def sallallahu ala muhammadin 333 boo ci jógee nga def li ila fi quraish sar bi ba mu jeex 333 nga defat sallallahu ala muhammad 333 defat li ila fi quraish 333 defat sallallahu ala muhammadin 333 <laughs> def li ila fi quraish 333 léegi nak li ngay am moy lan sallallahu ala muhammad yi dañ ci am 999 moy wuñu ñakare wala moy wara ay tanasa mbolo mi di dajalo ci sa barab li ilaafi Quraysh yi dañ ciy am limu 333 mbokk yi képp ku saxoo lii taalibe bi lu mu gàtt gàtt gàtt am na lu mu war a mën a jàpp ci zikkar muy faj aajoom képp koo xam ne danga ngaa woon ginnaaw zikkar ci njàqare rek ngay nekk wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka jàppal zikkar bi jàpp ko dootoo wax kenn soxla yàlla xam na ko dootoo am benn njàqare bu ub sa bopp ca doo ci am solution yàlla na ko yàlla barkeel seen mbokk la Serigne Mbacke Ndiaye Kourous